conseil supérieur de la magistrature euh, defee réunion bi mm-hmm. ñoom mbaw à la une mm-hmm. Macky Sambul timis Macky Sambul la magistrature mais gis nga dama koy lire dama tiit mm-hmm. te dans un pays y a séparation du pouvoir on ne peut pas accepter ça qu'un président la magistrature ça c'est pas bon waaw mais mais mais loolu xam nga li ko waral mooy justement li nga junjoo depuis Euh, j'allais dire 62 63. Mhm. Euh, avec la conscience de 63 dañuy dund li nga xam moo di hypertrophie présidentielle le président au Sénégal ne cesse de grossir il ne cesse de prendre du poids mhm. le président est trop volumineux mhm. parce que itam lañ ko dénk jox ko ne yow lii nga am comme pouvoir c'est trop parce que itam euh, le président à la limite il est un demi au Sénégal parce que tamit li mu mën Euh, euh, euh, si en terme de pouvoir rien que par le pouvoir du décret dafa dafa ëpp dafa ëpp dayoo te itam dañoo dañoo politiser li nga xam moo di système judiciaire bi ak telle enseigne ba nga xam ne citoyen bi léeg il faut mu am nu mu waxee pour artu am na façon bu muy waxee ngir woote wallu parce que itam bu toogee defe naa ni dañ koy rendi politiquement gis nga mu Diop tudd na ko Majhemout Diop dañ ko booleek ak un un un préfet la la xawma un sous préfet mhm. on l'a on l'a accusé ki di dafa mbaj préfet bi ñu daal di koy jël ràpp tëj ko kaso mhm. pourquoi parce que il était populaire au niveau de Saint-Louis dem na ba nga xam ne damay koy fàttali que parce que dafa am ay xale yoo xam ne dañu koy déglu te xamuñu histoire am gis nga bëgg sa réew jigéen ñi daan tagalu ndar dañ daan dañoo tuddee woon seen taggal yi bëgg sa réew gis nga ndoket yi ñu daan sol moo daan moom sa réew donc pour te dire le niveau de popularité justement de cette de cette de cette personnalité politique là ak liggéey lu ñu am mais ñëpp ñëpp ils ont été tu assassiné politiquement politiquement je dis assassiné lu tax avec lan avec véritablement la complicité justement de la justice sénégalaise par rapport au fait que am na ñoo xam ne ils sont dans la famille judiciaire waaye si waawu exécutif bi la ñuy wéyee dañu bind si si yoon mu leer nañ la magistrat n'est soumis qu'à l'autorité de la loi mais pour des problèmes de carrière parce que tam président moo koy gérer pour des paramètres de carrière parce que tam daa garde soo boo xam ne président moo ko fal mu di mise moom la àndal defe naa ni loolu nag la ñu war a raxas ba mu set mais ce n'est pas demain la veille ce n'est pas demain la veille encore une fois parce que itam nañuy fal machine politique moo leen di fal au-delà de leur formation politique dañoo constituer coalition boo xam ne bu ñu paree mais bernde la Mhm. bernde googu ñuy bernde moo tax jamono jii duñu bëgg changer dara alors le président Macky Sall à travers le plan yoonu yokkute dafa ne woon man su ma faloo du ma tabax ay autoroute ak ay pont je vais euh, restaurer l'état de droit restaurer l'état de droit moo di lan mooy rééquilibrer les déséquilibres mhm. je dis bien rééquilibrer les déséquilibres mhm. et en rééquilibrant les déséquilibres mais di nga am li nga xam ne moo di état de droit au sens véritablement propre du terme famille justice boo xam ne dafa ànd ak pouvoir am pouvoir am di doxal am système parlementaire boo xam ne dafa am yoon am nu mu ko war a doxalee di ko doxalee noonu exécutif bi wéy di liggéey liggéeyam waaye nag bu fekkee ni yow si biir ñi ngay ñi ngay ñi ngay berndeel di leen sedd di leen tuuf di leen saxal di leen jox ndoxos gu gu saf ñooñu saa yi di jël alalu askan wi du ko lubal jël ay ay ay ay mbir yoo xam ne euh, yu doy waar la def ko si li nga xam ne leen ko dénk mais danga leen di làq depuis Senghor ça se passe comme ça dans ce pays là en passant par Abdou Diouf en passant par Abdoulaye ba tey jii si président Macky Sall moom moo toog palais ñëpp toog ñëpp mu wax ñëpp dégg ko je suis désolé de le dire l' en tant que telle. Mm-hmm. dama ne ku nekk di citoyen sénégalais da nga ko war a jox cër ba mu mat sëkk. parce que tamit président de la république du yëfu caaxaan. Mm-hmm. defe naa ni ñii nga xam ne dañuy xeex pour doon ko parce que xam nañu ni la magistrature suprême véritable moo nekk au sommet de la pyramide. donc nit koo nga xam ne dañ la fal dënk la ne yaay yow yaay tu es le père de la nation tu es le gardien la constitution tu war a jox cër ka ñu jox cër itam dafa war a delloo cër gi ñu ko jox citoyen yi nga xam ne ñoo ko fal parce que saa bu soxlaa baat dafay wàcc sur le terrain dafay fëgg buntu kër dafay dem ay koñ dafay ay dem ay dëkk-dëkkaan ngir lan taataan baatu askan wi donc ku taataan baatu askan ba askan wi jox la baat da nga ko war a delloo cër waaye waroo mën a toog ni man am na dossier yoo xam ne sax man maa si intervenir mm. parce que tam am na ñoo xam ne suñu leen laalee ça la maladroit parce que itam te man bëgguma dëkk bi yëngu mais il n'y a pas de citoyen d'exception sëñ Moustapha ah, il n'y a pas de citoyen d'exception liiral constitution sénégalaise liiral code pénal liiral code de procédure pénale tu te rendras compte qu'il n'y a pas de citoyen d'exception dans ce pays là mais fii dañuy tànn le bu ñu lancé la CREI le procureur dafa toog cité ay personnes ñu tuddal ko ay tour mu ne ñooñu daal intéressé wuñu ma ay cent millions intéressé wu ma c'est des de fromage c'est ce qu'elle a dit c'est des de fromage intéressé wu ma mais li ko intéressé woon nu mu mujjee tey ji moom xaddaat ak xër gëm sa àndaloon parce que xëy na bëgg na président nekk waaw góor SMS lañ ko dàqee. SMS la yëgee ni dañ ko dàq. donc damay jàpp ni. buñ la buñ la voilà buñ la buñ la dénkee ñu ne la vraiment justice ak na mu diisee ak la si yàlla wax ak la sa askan di xaar da nga war a tëddee njaaxaan naay. da nga war a att si dëgg da nga acte scolaire da war a refuser toute pression moo xam biir la moo xam bitti la yow si sa tey bakkan yow si sa expérience ak expertise yow si sëgg si téere yi nga xam ñoo tëgg réew mi nga sukkandi si loolu mën a jàllale li nga xam moo di yoon wax li nga xam moo di yoon mais malheureusement les politiques on les on les aura élus demain on les on les aura réélus gis nga du changer parce que ils ne veulent pas que ça change parce que bés bu changer justice moom dëgg boppam. ah di dégg yuuxu foo xam ne saa waay daal la bett. alors Omar euh, bala nga bala ngaa dellu gis nga nen ne. oui président nga Ablaye mm-hmm. amul ci àdduna réew moo gis bu ne dans dans le monde fii ci àdduna les grandes réformes réformes bu fa amee. Mm-hmm. c'est le politique moo koy def. c'est-à-dire la volonté politique rien n'est résisté à la volonté politique malheureusement Sénégal moom mën ngay dénoncer justice boo falu. waaye boo deful ndànk ba fa la da nga di ko jëriñu et ça c'est très grave. mais mais moo tax yaa population peut-être ñoo war a contraindre hommes politiques yi mais mais mais population naka la ñuy contraindre les les hommes changer les choses par rapport à la justice. montrer qu'il y a une conscientisation c'est par envers Khalifa Sall mmh. l'acharnement envers Karim Wade ba tey sur un problème public où il leader boo xamante ne xale yi ñenn ñi am nañ ci moom confiance war a jël réew bi mu amee problème ak kenn dañu tax même si c'est privé. parce que ça prouve que aujourd'hui parce que soupçon. c'est ça. Mm-hmm. soupçon boobu nag moo tax tey moo tax tey population yi taxaw. ne du fi amee. te gis nga ni mu ñëwee. on allait on allait partir vers une situation incontrôlée. donc succession de faits yooyu. mais c'est ça fragiliser en quelque sorte la justice. succession de faits yooyu la et chaque fois dans Noumélan j'ai toujours dit écoutez ce qui se passe et ce que nous voyons Si on ne fait pas attention, on va vers une situation incontrôlée. Et ça s'est passé ah, moo tax population yi dafa am xamante ni gis nga nen. Mhm. une population parfois une masse parfois day aveugle. Mhm. nit ñi am na fu ñuy mere sénégalais du gaaw mer mais meram baaxul. Mhm. meram mën na mer ba jël benn kaña fal ko <laughs> ndax mer. xam nga on a l'habitude de dire aux sénégalais que les sénégalais. ils sont destitués. mais il sait pas élire. folli lañ mën. folli lañ mën mais mënuñu fal. sa <laughs> parce que bi ñu lay folli yaakaar bi ñu amoon si yow dafa rëy ba nga xamante ni ne bi ñu demee ba amatu ko bu ñu lay folli lu ñu gis jël ko. loolu mooy problème bi loolu moo tax nit ñi war a def attention maintenant il faudrait pas que ce dossier soit comme ce qui s'est passé avec les passeports diplomatiques on n'est deux personnes c'est fini. on n'est pas allé au niveau du ministère des des affaires étrangères demuñu ci maire yi demuñu xool ñu seen kër fi ñu ko jëlee nan lañ def ba am li yëpp dañu ñëw rek jël ñaar ñi te yóbbu ba léegi ñu téye leen c'est anormal. am na ay complices am na ay complices qui sont derrière où sont les hmm. pourquoi on n'a pas introduit ceux qui au niveau des affaires étrangères et tant d'autres à yi këyit fu ñu ko jëlee ak yooyu yëpp mais yooyu ñun dañu la war a interroger. ak mais état civil yeeg yooyu moo tax même sur ce était là entre Adji Sarr et Sonko il faudrait que tous ceux qui ont été cités ñi ñu cité ñëpp ak ñu ñu soupçonné ne ñu ngi si biir qui soit entendu oui attention ñoom ñëpp nag sans exception amul kii lii la amul kii lii la ñoom ñëpp nañ leen entendre comme ni ñu leen entendre bi nekkoon fële comme ni ñu entendre Adji